ñoo ne wàllu ndànk c'est que grand grand léegi Abou sa yërëm sama émission jeex na wax naa ba soo non non mais xam nga xam nga fële Habib Sy ay mu turé ñooñu nekk ci projet bële xam nga projet projet bi tamit y a des y a des y a des gens xam nga gis nga problème mu grand angle boobu angle boobu mais gis nga angle boobu grand xam nga li angle boobu ma ci ci du ci dëgg non non xam nga tey li ma gëm mooy gis nga seen coalition boobu

de Senghor musul nommé Niass wala Djibo Kata jaarale wu leen chef de service bureau courrier pour wax la l' expérience en matière d' état ak ak affaire expérience hmm. dafa bokk ci loolu hmm. mais léegi pour pour politique gis nga politique ñaar mooy am mooy mag mag bu déterminé taxaw jàkkaarloo xeex hmm. sénégalais dafa bëgg ku am courage di assumer parce que on ne peut pas dire des jeunes xam nga du tax ni may bañ moo tax politique de politique de civilisation ce que Bougane en train de réussir mooy dafa am politique boo xam ne ni mm-hmm. Ousmane Sonko bi ñu ko indee Sénégal mm-hmm. Barthélemy indi ko Guy Marius indi ko Sénégalais ñoo wax du ñu leen fekk si si débat mm-hmm. boobu alors que la majorité des Sénégalais noonu la ñu mel fi ñu toll nii Sénégalais lu mu xam mooy kii mooy ka kii opposant bi kii moo jàkkaarloog moom di xeex ak moom te assumer ko fu mu génnee mu génn def contradiction amul diplomatie man gëw ma diplomatie ak dañuy rafetal donc comme comme génération yi di ñëw comme bloc yii di ñëw mm-hmm. bloc bu taxaw déterminé wu gëm ko gëm ne xeex bi buñ ci nekkee mën nañ ci am ay réussite mm-hmm. xeex bi buñ ci nekkee ak sénégalais yi mm-hmm. parce que xeex moo jox Ousmane li mu am dama ko ko nangul loolu mooy li mu am yëpp xeex moo ko ko may li mu am yëpp présence ci terrain moo ko ko may li mu am yëpp dafa dem ci internet bi miine ko li mu am yëpp parce que Ousmane Sonko doonu woon sax bu ko picc invité woon sax ci internet mu dem live bu ndaw wala benn site yëpp def na leen ñoom émission dafa respecté woon ku ko invité parce que pendant ce temps da gis leader yu mag yi ñeme wuñ plateau yi comme yow ni ko ñemee ñëpp a désert xam nga li tax ma ne la kii duma la man naa la mooy dama ne Macky Sall li nga ko defal dafa la sacrifié parce que sénégalais yi ñu la indi benn tâche yow Moussa Mouhamed Moustapha Diagne bokk nga ci ñi la gën a nii parce que tous les plateaux ak courage ak argument ak bonne communication peut-être que même seen coalition boobu noonu yow ak Adji Mbergane Kanouté mm-hmm. man ñeneen ñi gisatuma leen woon mais yow ak Adji Mbergane Kanouté rek ne serait-ce que ce duo peut faire quelque chose parce que Adji Mbergane ah, Kanouté ah, na ba sax xeex ñu sur le plan international c'est vrai c'est vrai ci Macky ba pare fippu yi yéen ko démarré ci biir Macky 2012 mm. à l'interne ngeen ko démarré ba pare bu mm. porté ay combat yoo xam ne avec des maires de la ville mm. ñëwaat toog fii di def expertise gis nga seen coalition boobu bu ngeen yegsee jël communication bi taxaw di wax ak sénégal yi Mm-hmm. am courage bi comme ni ko aji mbergaan di defee ak yow ni ngi koy defee mm-hmm. dafay dafay réussir mën na sax romb ñu fi nekk mm-hmm. parce que le fait que Bougane est là chaque jour mu génn taxaw parce que Ousmane Sonko nee na soxlawul grâce et c'est comme ça qu'il fonctionne loolu laa gëm moom moo mën a régler la situation parce que sénégalais gëmul ay kii mag la wala magul même ay dëmbooj moo ne woon ci système bële tey moom mooy yaayu kii ñu koy tàcc même Mimi Touré bii moo doon xale yi ñu ko faloo ñoom di ko défendre Mm. parce que sénégalais position bi mu nekkee kii wax soxlaam kii défendre affaire am moom moom lay topp mais bloc yii ni ñëw nii man xam nga intercoalition lañ ñu jaay mm-hmm. ba indi dindi majorité réduire majorité bi mm-hmm. mais bi ñu demee lan moo am assemblée nationale motion de censure sax ñoom mm-hmm. ñii li ñuy bañal ñii tey motion de censure bi ñu ne baaxul ba yeewi amee majorité équilibrée moom la njëkk a tànte contre Amadou Ba te aujourd'hui tey moom la analyste yeeg affaire yeeg yooyu naan pourtant PDS alors que ñii bi ñu leen joxee loolu si lañ ko tànte kon ñii wane nañ seen jikko ci bi ñu leen joxee ko majorité léegi assemblée bi ñu jëm nag ñii bi ñu leen laajee majorité équilibrée mm. dañoo ñëw ñoom def ko xeexukaay mm-hmm. song ci Khalifa Sall mm-hmm. def ci motion bu jàllul mm-hmm. ba pare ci seen biir ñoom bi ñu leen ko joxee ñu indi fa loi bu amnistie boo xam ne benn sénégalais bugg ko parce que bi ñu leen joxee majorité PDS euh, Benno Bokk dafa résister ñu am débat à l'Assemblée nationale vote budget yi am député yu am talent foofu la ñu war a defar sénégalais yi wan leen fi ñu mm. jëm mais nag bloc mm. intercoalition bloc mm. mooy tax ñu mën a am ñu mën a dindi ku nekk aw nii ku nekk aw nii ku nekk awaat nii ils vont avoir dañuy ñëwaat amaat mm-hmm. parce que ñoom loolu la ñu xam te ñoom ils préparent actuellement avec seen procès procès presse yi ñuy préparé ñoom préparé wuñ ay procès tribunal parce que xam na ñu ni fii loolu ñoom mënuñu fi jàpp kenn mm-hmm. parce que par contre bu jàpp di am ñoom lañ war a jàpp pour ñu indi preuve yi ak ni ñu saliré Tahirou Sarr ni ñu saliré Mamour Diallo

parce que noonu lañ defee woon si Ousmane Sonko créature médiatique lañ ko defoon créature defoon Guy Marius Sagna créature médiatique lañ defoon waa Pastef yi ba plateau boo leen invité nga ne doxul donc pour man foofu laa doon waxee ni mais bu yoo xam ñu xeex jeunes yoo xam dañ fi nekk di civiliser naan du ñu xeex mhm. di def ay élégance mhm. ci politique loolu moo amul nag ci politique loolu moo jeex ni Ousmane Sonko indee erreur yi ba pare lu ma gën a neex ci Ousmane Sonko mhm. mooy ni mu ne transhumance amul fermer la porte yi donc képp kuy rogosière di créer ay coalition di créer ay bloc libéraux di créer Ousmane Sonko fii mu nekk nii man man man maa ci défenseur am foofu mm-hmm. projet bi foofu moom mm-hmm. ànd naa ci ak ñoom mooy le fait que ils ont fermé les portes te bëgguñu transhumant ku nekk fa nga nekkoon toog fa jarul rogosière jarul buruxu jarul duruñu te amul ci lenn mais mais grand après nga bàyyi mais madame madame yóbbante ci yow mu ngi lay seetaan

pour ñu def ay analyse waaw waaw nekkul xam-xam de parti la donc waaw nekkul en tant que politique waaw dëgg mais déjà politique bu salte waaw mënoo ko waaw li nga wax nii mm. noonu la mm. te loolu la ñuy def mm. maintenant nag débat bi li koy réglé li koy dugal bataille d'opinion la ñu mën na gagné parce que Pastef perte na bataille de terrain ah, ndax police yi moom mujj na leen marqué perte nañu bataille toutes les batailles judiciaires dañ ko perte. Mhm. procès yëpp dañ ko perte. mais bataille d'opinion lañu gagné. lañu gagné ak protocole ak ko mu wax. waaw bu ñu wax. Mhm. parce que il faut qu'on façonne l'opinion. Mhm. ba opinion bi gëm ni. il faut équilibrer les forces. te loolu ñu ngi ciy liggéey mais loolu fii quoi. waxu ah, feneen